الرسول ومنهجه القديم active direct ak fekkente ni da nga ko wolofal alif lay doon ak deel bil arabia bu dee kon ci wolof day mën a doon addu addu mooy expression rek mooy wax eh. dem dafa doon sit boo xamante ni bii nag euh, ki ko amal dafay surtout Cheikh Ibrahima Fati di Mouhamadul Habib ñu tudd ko maamam euh, bu sëriñ Cheikh Aïchatou fay kon bu dee site bu beesee defe naa ni te yu bees xew wax ci lu bees mbaa fàttali luy fàttali day yell bi ma ne bismillahi ni wa ala millati rasul wa manhajil xadim imaanan wa islaaman wa ihsaanan li nuy njëkk a def jël sunu ziar jooyal ko ci kilifa ak ñépp mu Cheikh Muhammadul Muntaqa ñëw fii ci Daaru Muxti jooyal ko ci cheikh Mouhamadul Bachir xalifatu cheikh waaye bi bismi cheikhi Sëriñ Moustapha Hafsa ak mboolem njabootu daaru borom daaru ma ci gépp dëgg la siit yi bari na naam bokk na ci siit yi nga xam ne dafa war a gën a ràññeeku bu tegee fi mu war a tege xew-xew yi fi jàll nag di massawu ñëpp senegal yëpp ñi nga xamante ne bii ñoom la seen njaboot jiitu malakal mawti jël ci seeni roox suñu boroom ku muy jëlu ak rooxam rek ak fa mu koy jaarale xam ne ñi jot a dem foofu la seeni roox waroon a jaare di ziar sëriñ Muntaxa ak sëriñ Basiru ak sëriñ Moustapha Hafsa ak sëriñ Maam Cerno bu sëriñ Cheikh Awa Balla suñu mbokk mu baax mi dëdd te sëriñ Muhammadul Muxtaar ibnu yaa xafaar eh, wax naa léegi nii ñu ngi massawu ñépp Sénégal yépp bu dee sur le plan spirituel Serigne Mountakha ca bopp ba sur le plan temporel président Macky ca bopp ba ñëpp la ñuy masko ñëpp la ñuy ndax mas masawu boo koy def du càggee na danga koy limité dangay xool dangay koy yóbbu ca kilifa yi ki moo jiite spirituel ki jiite temporel ki jàtte ki jiite temporel nag ma am yu ma ko bëgg a junj ci man mii di wax a yéen fu ma jaar. ci rafetal ci sama diggante ñoom la ko tàmbalee ci président Diouf président Wade ba ci moom mii yi nuru yi ñu taamuwul moo xam ci xew sama njaboot walla njabootu keneen ku mu mën a doon yooyu yëpp dafa am lu nu Serigne Touba jàngal ku na xam na ni al jazaul ihsan illal ihsan na xam na ni itam inal xasanaati yuzhibna sayiati waaye ñun ñuy sant na ku tedd ki ci bi mu defee ci ñun maanaam lu dul rafetal rafetal mënu ko gënal moo tax waa temporel yi ak ñi mu ko séqal bu ñu am arrière pensée ci man ci sama njaboot guñ jàpp guñ jàpp njëkkul tey te la ma doon wane démb ak ki démb ci élégance moom lay wone tey ëllëg itam moom lay wane bay boo seen xel dal ci man ku tedd ci dama jàng mu wax boromam ni ko axrij idaka sarmadan min rahmatik waleen taqam minhum bi abqa niqmatik ci bisu gaawu la ko bind booba daf leen ko daf ko wax naziral sa noon yii na nga leen génne ci sa yërmande waaw man duma fayu waaye nanga nga ma fayul loolu la ko wax foofu te ci bisu gaawu la ko bind ba demee ci ik fi nii itam mu wax ko ni ko antalazi min idal islaami muntaqimun walin taqamta waaw <laughs> yow yaay ki nga xam ne aji fayu ji nga xamante ne bii maanaam noo lislaam yi yaa leen di fayu man fayu nga ma loolu wax yàlla man su ma neexoon ku ma tooñ ma ne ko tedd ki nag ma fayul waaye li ma ko tedd ki defal méngoowut ak fayonte waaw moo tax du ma bu na ñëpp dal dalal seen xel ci man waaw te xam ne man maa fi waxoon bërki démboo njaay ni képp ku bëgg teg ci baatu kilif ci baatu ki sa baat képp ku bëgg teg ci deru kilifa lu dul noona ñëwal teg ma ko mm-hmm. la Sëriñ Musaa ko waxoon ci ko tedd kii ni ku tedd ki dafoo xam ne may na ma dalub islam manit nit may na ma dalub muridiya lu waay buum na ma xëpp waaw sa sang yi ñu suturaal ngir jëmmi ku tedd ki waaw ki tax ñu doon ay sang wa salaamu aleykum wa rahmatullahi